dénkaane Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee julit yi lay siwtaane dénkaane yi Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee julit yi lay siwtaane ku daan liggéeyal yonent bi nee na def naag yonent bi fukki at yoo xam ne musta gis ku rafetee jikko walay teggin ba mel ni Seydina Muhammad ndax nee na ci bi mu koy liggéeyloo mosu koo gëdd mosu koo yuuxu mosu koo wax lu tax defoo lii mosu koo wax lu tax nga yàqal ma lii lu dul nee na waxtu wu nekk rek jënn jikko ji mu gis ci yonent bi jikko jooju rek li ci gis muy baax gi ak yiw gi dëgg la sayyidatuna Aïsa nee na maa raaytu ahadan arhamu bil hiyaali min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na mosunoo gis ku amee ay teggin yu rafet ak jikko yu rafet ci njabootam ba mel ni Seydina Muhammad Aïcha ñi dëkkoon ak moom wax na loolu nee na yonent bi musta gëdd kenn musta kenn ci njabootam ci loxoom bii mu su cee def kenn lu ñaaw lu dul rek ku bëgg dikk yàq ormay yàlla wala ormay lislaam nee na kooku daal la mu muñal ay tegginam nag noonu la meloon mu àndoon ak kersa gu rafet moom yonent bi wax na ne alxayaau laa yati illa bil xayri nee na ay teggin du la yót lu indi mukk lu dul aw yiw safaan nag moo lay indi leneen waye ku bëgg taxo yiw rek ci mépp mbir mo nek na nga lambo ay teggin ba noppi kon guddi gi bu ñu koy wax ay teggin rek la ñu wara wax ni nga xamne mom la Serigne Touba daan wax naan naqiyun taqiyun salihun saalihun waxwal muslih basirun liman lillahi bil haqq yusxinu mom la Serigne Touba di wax yonent bi neena sunu yonent bi nu yàlla jox mooy ku set te mooy ku ragal kay yàlla mooy ku defaruka tey defare mooy ki nga xam ne da daan bégal képp koo xam ne mokk na jëm ci yàlla rasuulullaahi daan na la bégal da koo defoon arab ma def ko ay wolof ngir bëgg rek nu farlu roy lu baax te jëf summa sañoon ñu nekk gën gi muslimiin te doon murit ju wéri way te sax ci gëm